jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi njiitu réew mi Macky Sall rek daal di jublu nak jëm ci wàllu dox jàmm ci Sénégal mu jàpp ne publique bu Sénégal ak décret bi nga xam ni teg nañu ko ci benn fan ci weeru mars bile lu jëm nag ci présentation loi bu amnistie bi mu ni kon texte yi nga xam ni fësal na ko jébal na ko assemblée nationale ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci exposé yi nga xam ni joxe nañ ko lañ fa waxtaane mooy amnistie maanaam rek kon amnistie bi rek la ñu bëgg mu amal ginnaaw li nga xam ne am na file ci Sénégal ñu daal di koy dund nag ci atum 2021 jàpp atum bi nga xam ni ci la ñu daal di nekk kon njiitu réew mi moom la mu sàkku rek mooy ñu daal di def amnistie bi jëm ci wàllu rek fitna ak manifestation yi fi amoon ci at yile rek ñu daal di génn jàppitam ci at bi nga xam ni ci la daal ci lañ daal di nekk te mu metti loolu kon mu ni loolu bu ñu sañoon. ñu daal di def amnistie bi foofee nag ca pencum ndaw réew ma kon lañ koy voté mu mel ni dañuy toog di xaar kon caltine gi la la jébbal mbir mi kon Amadou Mame Diop. Alioune day xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama daal di nay wax rekk ginnaaw ay kàddu yi nga xam ni Papa Abdoulaye Touré yëkkati na ko jëm nag ci enquête judiciaire bi nga xam ni sàkku nañu ngir nag ñu daal di koy teg ginnaaw convention bu ONU ak itam rek Sénégal ni ñuy dundee nag mu ni loolee lu metti la ndax. juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti ñoo xam ni nag moom loru nañ ci ay domestiqué lañu maanaam rek ñoo xam ni kon liggéey réew mi rek moo leen ñor loolu itam rek moo leen tax a jóg ginnaaw obligation internationale bi nga xam ni tegoon nañu ko fii.